weer bu ñu nekkee ci nguur gi ba léegi Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye fay lu ñu leen gën a ràññee moo di mbirum politique Ousmane Sonko jiite ko ginnaaw ndaje bi amoon université nga xamante ne amoon na coow bi yoon coow judduwaat na ci position yi nga xamante ni Ousmane Sonko mu ngi koy défendre. nekk ci moonte de ci njëlbeen ndaje mu mag mi nga xamante ni dañ ko duppee ndaw yi ana naka lañ mën a def ngir bokk. ak looy bind na ko seet ba mu wóor nga wax ko bind ko moo mu nekk ay attaques yoo xamante ni ci taskatu xibaar yi la jëm ñi politique ak tamit ñenn ci magistrat yi dem sax bay tooñ ñi nga xamante ni ñoo nekk ci gouvernement bi. li ñuy wax la plan d'action du gouvernement. président Bassirou Diomaye fay jox orientation yi ñu def plan yi man nag en tant que chef de gouvernement maa ngi jéggalu ñu mu neexul ma kordone ko nag daal di xëcc nopp ministre yi. kii fi nekkoon député assemblée nationale di Thierno bokk ma ab laaj nan la ñu mën a waxee ni magistrat yi ñenn ci ñoom dañu corrompu te yow mën nañu njoxte ñi yaa ngi bokk ci ñuy lëkkaloog procureur jaare ko ci ministre de la justice mu nekk lu wute loo xamante ni beneen laaj lay génneewaat moo di taxawaayu Ousmane Sonko am ku xelam màcc ci wàllum communication politique mu ne premier ministre moom mën na politique wante yenn saa yi dafay juum ci taxawaayam bu fekkee ni da ngay wax saa yu nekk da ngay dem sax ba nga xamante ni kenn dootu la gëm moom mu joxe message bi nga xamante ni moo jëm ci wàllu loxoliku fii ci Sénégal leneen li nga xamante ni jàpp nañu ko moo di ay dig yoo xamante ni Ousmane ko def na ko. ñaari at ñu la ñu fal la 2012 ba 2014 ngay doog a génne PSE ñun ñu ngi fal 2014 2024 septembre 2024 ñu génne leen suñu document. ci noonu nag ndax dañuy gis beneen fànn ci lu ñuy woowee le projet fii ak ñetti weer dinañ ci xam dara.